léegi fi ñu jeexalee ci face to face boo doon dox ci diggante Modou Lo Ama Baldé mardi la woon Sen TV mujjul am li tax nag mooy ñaari mbooloo ñu àndandoo ñu àndandoo ak ñaari mbër yi bëri na bëri boo xam ne foofu dafa mujjee d'abord dafay annulé face to face bi d'abord est-ce gis ne euh, fu mel ne Sen war nañ fa mën a defee face to face Modou Lo Ama waaw mën nañ ko fa defee sax ndax fu mel ni iss 2S ña ngi koy def ay ay face to face ak feneen ak feneen fu ne mën nañ ko defee face to face mais promoteur bi. moo euh, sëñ Fallou Nicolaï moo xaw a juum tuuti ndax moo jox mi mbër yi pour ñu woote xam nga moo jox mbëri yëpp ñu woote ku nekk OCS ku ne dégg na woote mbëri yi ñoom ñaar te Ama Baldé am na ginnaaw bu jugee Pikine gépp jóg Modou Lo am na ginnaaw bu jugee Pikine gépp jóg mais la ci am nag rafetlu wuñ ko ndax ñun mbër yi du ñu ay dof xam nga du ñu ay dof waa parcelle du ñu ay dof waa waa du ñu ay dof ñoo bokk ndey benn ñoo bokk baay benn takkusaan rek moo leen boole kon lu ñaaw jaru ko fi ndax làmb tëjoon na lu ñu lu ne ñu waxal ñu ko lu ne ubbi sport yi ba mu des ñun Matar ba góorgóorlu président góorgóorlu ba jàppale ñu mais nañu wàññi violence bi xam nga te ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Modou Lo ak Ama Modou Lo benn takkusaan leen boole rek kii day daan kii daanu di leen ñaanal ñoom ñaari mbër yi yàlla na leen yàlla defal jàmm mu tëgg nag combat bu garaaw nag ku ci nekk nag say supporter bala ci combat bi am na am ñu wax ne face to face waruñu ko defee ci fu mel ne yoo xam ne dafa nga face to face yi face to face yi bu ñu ko dee def léegi du problème supporter yi moo tax ñu di ko def léegi face to face mbër bi mën nañ ko may cinq personnes yi nga xam ñooy ànd ak moom juru làmb ja pour sotti ko gàllaaj ñooñu may noonu lañ ko may ak ñaari mbër xam nga loolu d'accord naa ci quoi mais face to face pour peuple Sénégal bi la suñu yaay yeeg ñu papa yi nga xamante ni dañoo bëgg làmb te jour ba duñ dem ak sponsor yi nga xam ñoo bëgg a seen kii pour ma wax comme euh, yi ñu xam loolu face to looloo ko war a jóg xam nga bu ko defee ñooñu nga xam duñ mën a dem làmb ja mën a seetaan mais ñun ñi nga xamante ñooy yi nag ñoom face to face mën ko seetaan nii rek mais làmb jaa leen gën a moo tax ay sponsors nga xamante ni moo war a feeñ ci làmb ji moom la ñu war a teg ci face to yi jël mbër mu nekk ñu may la cinq personnes xam nga ak sa staff ñu ñëw dugg seetaan ñu waxtaan wax li ñuy wax ku na dem mais léegi tant que ñu ngi jël face to yi di leen boole il faut que am ñu ci rax xam nga te monde làmb dafa am ñoo xamante ni dañuy yaakaar ne ci lañ bokk mais bokkuñu ci tey am na bu ñu gisoon groupe nit buy coowaloo foo jaar fukki sàcc ñëw bokk ci géem a yàq il faut ñu xam loolu mi ngi mel ni toj fi amoon rek xam nga toj fi amoon ay am na ñoo xamante ni duñ ci xamuñu sax kuy Sonko xam lu jë nañ oote waat fi mu ne nii bu ñu oote waat duñu gis kenn am na loo xamante ni il faut que nit ñi bàyyi ci xel réew mi réew jàmm la jàmm jàmm la dal te combat Modou Lo Ama Baldé ñëpp a ko seetaan ñëpp a ko yàkkamti buñ si xoolee nag ba leneen di ci am ñuy woote ba ay xeex di ci am ay jaasi di ci am man Xaadim rafetlu ma ko ndax ñaari mbër yëpp samay rakk lañ te ñoom ñaar lii mooy seen adduna lii mooy seen liggéey maa ngi leen ciy ñaanal yàlla defal leen ci jàmm defal ko seen i supporters ñu dal ñëw bëri ko ci jàmm kii daanu daanu buñ dee mat si ñu mat si yàlla defal ñu jàmm. xam nga bal tey promoteur bi tëgg na làmb ji mais xamul bi mu tëgg lan la xam ko xam nga di nga tëgg événement mu ëpp la doole. événement Modou Lo bi mu ngi fàttali Modou Lo Balla Gaye xam nga Modou Lo Balla Gaye demoon na bay hélicoptère am ci yoon mooy combat bii nag xam nga xale bu yéeg la ak mag bu ñu fekkee ci kaw bëgg bëgg a jël lim moom. xam nga te ki ki bëgg a jël lim moom ndaw la ni moom xam nga Ama nag ne ko fu ma la fekk dama la fay jële Modou ne ko man du ma sa ñeexu ñebbe kon loolu rek ay wax la kon nag nit ñi ñoo war a bañ indi histoire man damay jàpp ni kuy indil Ama balde histoire bëggoo ko képp ku indil Modou Lo victoire bëggoo ko xam nga laaj ma lu tax mm-hmm. te sël bu ndaw la tudd te sëlu bu ndaw day màgg Modou nag am na benn baat boo xamante ni dama koy dégg mu di ko wax ci moom moom ne chaque jour mu ne du ñeexu ñebbe kenn kon kooku xam nga wóolu na boppam ah kon xam kooku wóolu na boppam 100 pour cent kon ñaar ñooñu nag bu demee ba yàlla di leen boole ñëpp ko man làmb jooju du ma ko tardé ndax ku yéex doo gis jëli fi ndax ñaari ñaari ñaari attaqueur lañ Modou Lo kenn du ko attaqué Ama Baldé attaque la xam kon nag lu war a xam foofu yàlla rek ko xam maa ngi leen di ñaanal samay rakk lañ yàlla may leen jàmm may seeni supporter ñu dal réew mi lépp ubbeeku na fi mu ne nii te gis nga buñ buñ yàqee làmb man gis naa ni làmb bu ñu dawalee tuuti di nga gis mbër mu fayu sax 500 millions. mën naa nekk de. man Xaadim maa lii di nga gis mbër mu fayeeku sax 500 millions te maa ngi leen koy ñaanal yàlla na leen ko yàlla defal ndax làmb luñ ci fay mbër rek des na te gis nga suñu rakk yi affaire bi du ci ay signature contrat de affaire bi ca géew ba la ku ñeme sa morom bu say xarit bu say nit di yëngal sax ne leen eh, dal leen ba bis ba ma lijjanti leen ko ngeen kontaan loolu laa gëm ci mbër waaye nekk naan xeex leen ak yooyu. ñu koy def bokkuñu ci làmb bokkuñ ci monde làmb moo tax ñu ñuy tuumal toujours naan làmb agresseur la ak yooyu amul benn mbër bu fi nekk di jël say supporter naar xeex leen ak diw déedéet dañ sa dëgg Modou Lo noobul la bal Ama Baldé noobul la mbër noobul la kon yàlla nañu yàlla defal jàmm rek bi yàlla defal ko jàmm ak ñoom Gaston Mbengue ak ñoom Pape Abdou Fall ak ñëpp ndax làmb ji bu ñu waree dingoot day dingoot li ñuy wax Samba yaa na ngaan làmb ji digi joor na bu yàlla nañu yàlla may fekke ñu dugg ci koor geeg bisimilahi rahmaani rahim jeexal ceeg alhamdulilahi rabil alamin gars yi ñëw rayante dóorante kurpañ xam nga R4 yi toj r yi ubbeeku ñu dem ci ardo ñëwaat loolu la amateur yi bëgg waaw. na solo ñu jeexale ci combat Modou Lo kii Diène Kaïré ak Modou Anta waaw combat doo gisee. non ku xool Diène Kaïré ni mu téye bi mu téye bi mu téye. Modou Anta dangay xam ne Diène Kaïré ko ëpp doole mbër moo gis ñu téye ko rek. te jéen jàppul fenn Modou Anta jàpp ci ngeen la pare ndengeeñ dañ ko ëpp doole doole rek a feeñ sëriñ sax feeñu fa doole moo feeñ doole wax doole doxul jàmm mais diggante bi ku nekk dafa jàpp Modou dafa jàpp jéen dafa jàpp taxaw Modou Anta jàpp taxaw non jéen jàppul ci commencement après la jàpp bi ko dóoree dóoraat ko ci la loolu loxo ko jàpp jàppee nag xam ne boo xoolee ni mu ko xëccee sax ngay xam ne jéen def ko ëpp doole lamb daal soxla naa ci doole mais topp sëriñ si tamit ba fàtte sa doole boo ñëwee da ngay am déception rek xam nga kon làmb li ko yor mooy entraînement bu wér ak doole ju piir sëriñ doog a ñëw xam nga sëriñ pour lan la bu kenn takk sa bu nekkee rek loo bëgg ci làmb mën nga ko am waaw. mooy sa na nekk. sa xel daal na nekk bu sa xel nekkee loo bëgg ci làmb mën nga ko am mais ñu bëri na dañuy jël sëriñ teg fa sëriñ baax na béemoo mais doole ju bëri doole ju fees ngu cuisse yu fees tànk yu fees del avant bras bu dëgër nga xam ne boo nee rang mbër mi. day gis beneen monde loolu laa gëm ci làmb quoi mais pas ay sëriñ waaw. ñëw mbër di ñëw ci làmb euh, tardé est-ce que loolu mën na ko yàqal dara ci kombaam bi. xam nga waxoon naa la boo dee seet euh, tey ma wax la benn affaire xam nga waxoon naa la ci combat bi ne la mbër yi mbër yi njëkk dugg si la de moo njëkk a dugg si làmb ci mu tegu Diène Kaïré man bi may dugg si la ama Sène ci lay dugg si maa ngi moom ñoo dugg si te maa ngi ñëw ay 5 heures nangam xam nga kon am na lu ma la ci waxoon quoi njëkk dugg si ci biir géew am na lu muy def ci mbër ñu bëri xamuñu ko nag waaw xam nga am na lu muy def ci mbër waxuñu nag comme ñëw Gris Bordeaux bi ñëw 9h ci suba ci làmb xam nga loolu waxuñu ko loolu da ngay gaañ say miskil rek waaw teel a ñëw ci làmb dañ ko bëgg mais maa ngi xam ni daal làmb ji daal dingoon na réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm képp ku fi nekk di indi ay yàlla na këpp ci yow wala yàlla boo ko fekk ku xool li sëñ Mountakha def ah xalif général yi def ko sëñ Mountakha yëkkati 50 millions jox ko ñu wàññeeku dem ba Casamance di ko fa Mbacke Balaye sax ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan sa dund gi am na solo lool yal na yàlla guddal sa fan Mbacke Balaye sa ñun loolu lañ soxla ci réew mi dal di ñaanal président Macky sal mooy njiitu réew mi ku mu neex ku mu naqari moom la fi yàlla teg tant que mandaam jeexul du fi jóge yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko njabootam ñu ngi gërëm ñëpp di sant di la sant bu baax yooyu. jaayee suñu xarit